asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalib yi nga xam ne yéen a nga ñuy seetaan tey jii ci jataay bii nga xam ne fi la ñu toog euh, fas yéene séq nag ak jataay bi ñi nga xam ne ñoom lañu ñu fas yéene àndal liggéey bii nga xam ne dañu koy woote ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ko séqal gannaaw bañ ci jiitalee Serigne Touba Cheikh Mamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yi ñu àndandoo nag ak waa fédération Ndaam Xaya ñoo daje di waajal bis bi nga xam ne dañu koy amal ca ndaam xaya ñu jàpp ko nag mu war a doon la 13 ak la 14 di la 13 janvier ak la 14 janvier di ñaari fan yoo xam ne waa fédération bi dañ ko fas yéene daje ngir ñaanal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way dawliya waaye waxtaanee ci mbokk gi incha allah nag ci biir waxtaan woowu nag danañ ci jox jëwriñ yi nga xam ne ñoo fas yéene jël kàddu ci turu kilifa yi ku mel ne Serigne Abdourahmane Lo moom mi nga xam ne moom mooy coordonnateur bi bu ñu noppee itam danañ jox kàddu ki nga xam ne mooy Serigne Omar Lo di administratif bi ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Ahmadou Lo di wax ci njiital sëti Serigne Dame Issa yi kon ñooñu ñoo fi fas yéene jël kàddu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides sëriñ mbay si Mansour ak mbooleem xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp mbooleem nag ñi nga xam ne mooy mbooloo mii nga xam ne tey jii njabootug maam daam isa ngar xati la ci njiital sëriñ maxtaar loo bu wasadu ak alaaji ibra loo moom sëriñ maxtaar alimaloo ànd ko nag ak fédération bi nga xam ne mooy fédération ndaam xaya ci njiital coordinateur euh, euh, abdourahman loo waaye and ba tey fédération ndaam sëti saamaan ibnu suufiyu njiital alhaaji aali loo bu tayba njaay ak sëriñ mamar loo mi nga xam ne mooy secretaire général bi loo ñooñu nag suñ ko tuddee yóbbaale na ñëpp li tax ñu leen tudd nag ñooy sëñ bi waxee léegi muy bisu ndaam xaya ñu jàpp ko nag samedi la 14 janvier mu war a nekk foofee ca ndaam xaya bis boobu itam ñu jiital ci nag ci bis bi la 13 boo xam ne dañ ko am luñ ciy waajal ngir bis boobu la treize dañ fa ubbi woon benn ju dañ fa tabax jumaa joo xam ne ma nga fa waa tey liggéey fa benn forage boo xam ne forage bi ma nga fa waaye itam nattoon fa lu toll ci ay fanweeri parcelle ñu war ko ubbi joxe ko ca bisu ajjuma ji nga xam ne moo jiitu ci suba saa nag di samedi ñu war a daje muy la quatorze ñu war a def nag nañ ko daan defee ngir màggal sunu maam ya fàttaliku leen ci njàngum alxuraan njàngum xasida istixfaar salaatu ala nabi nag ñu ko tuddee maam Mbaaka Lo maam Mbaaka nag day mbokk di lépp moo tax ñu tuddee ko bis boobu ngir boole nag mbokk gi ak fàttaliku maam yi nga xam ne yëpp ña nga fa woon bis bi itam danañ ca fàttaliku maam Demba Binta maam Demba Binta nag buñ koy fàttaliku daara yi mu sos ak njàngale mi ak ñim jàngal ci réew mi moo tax ñuy fas yéene fàttaliku maam Demba Binta. loolu nag soxna Soxna Marème Lo moom lañ ko dénk ngir mu war a waxtaanee maam Demba Binta waaye nag ci biir waxtaan woowu danañ fa dugal waxtaanu diine ak mbokk ñu koy def itam mooy Serigne Khadim Lo moom Serigne Moustapha moom Serigne Ndam Abdourahmane ak Serigne Mbacke mu bàyyi Thierno Lo loolu yëpp nag ñu di ci woon ak mboolem. section yi nga xam ne ñoo bokk ci ndaam xaay yëpp section Touba sëriñ Ibra Lo jiite ko waaye section ndaam yi wër ndaam yëpp nga xam ne ñooy wër xaya section yëpp sëriñ Cheikh Dieng moom sëriñ Moustapha Lo seriñ sëriñ Mor Absa moo ko jiite section Taïf sëriñ Ndaam loo jiite ko section Ngaabu sëriñ Modou May Lo xalifa sëriñ euh, Amsatou Lo section Diourbel sëriñ Salihu Lo jiite ko waaye section euh, euh, Ndaam Fental sëriñ Assane Lo moom moo ko jiite section campement Ngexox sëriñ Modou Lo jiite ko section bi nga xam ne moo nekk Pout sëriñ Fallou Lo jiite ko section Dakar Euh, imam Omar Lo jiite ko section Kébémer sëriñ Modou Lo jiite ko section Sagata sëriñ Modou moom sëriñ Bàcci jiite ko section ñii bi sëriñ Modou Lo moom sëriñ Assane Bàcci jiite ko bépp nag mbooloo moo xam ne ma ngi yëngu ci ndaam ngir dundalu mbokk ak fu mbooloo moomee mën a nekk ak entité bu bokk ci fédération bi ak entité boo mën a nekk ak foo mën a nekk ci réew mi ak diaspora bi ak fu waay mën a nekk yëpp bis boobu euh, ñu ngi la cay woo bëgg ñu ko ak yow di ci jiital itam ba tey ci wàllu euh, administratif bi gouverneur de la région de Louga préfet département bu Kébémer sous-préfet bu Sagata gendarmerie bu Sagata Abdoul Aziz Fall maire Colom Fall ak euh, As Amarlo maire Sagata waaye kilifay diine yi kilifay aada yi ñëpp ñu ngi leen tey woo réew mi ba bitim réew fu waaye mën a nekk rek te bokk ak waa Ndaam ak fu noo bokkee ñoom rek bis boobu ñu ngi la cay woo di ñaan ñëpp teew ca bis boobe salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julli ji bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yëkkati suñu kàddu mu jëm rek ci bisub maam Damy Isa Ngar bi nga xamante ne bi sabab baa ngi bàyyikoo ci mbooleem kilifa yi nga xam ne ñi ngi sëtoo ci askanu ndaam ñi nga xamante ne bi ñooy mbooleem sëti maam Damy Isa Ngar Xati yëpp liggéey bi nag ñi ngi ci jiital ci li nga xamante ne bi mooy wàllu administration ñuy woo président de la république ak euh, madame le président muy grande dame di woo nag mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ci bokk te bokk ci administration ci biir réew mi ak bitim réew te sëtoo ci askanu ndaam ci mbooleem sëtu maam daam isa ngar xati ak càllala goo mën a bokke ak noo ci bokkee ak ndoom ak tànk goo mën a yor ci biir réew mi ñoo ngi la cay woo bis ba nag ni ko sëñ Abdourahmane waxee rek noonu rek lañ koy fas yéene taxawa mooy que ne bis ba dinañu ko tàmbali 9h ci suba fas yéene yëkkati alxuraan di ko jàng ba nga xamante ne bii 13h jot na ñu yëkkati kàddu yi tàmbali waxtaan. ja ànd ko ak Serigne Khadim Lo ak Serigne Mbacke Lo Thierno bu ñu ca jógee dinañu bernde suñu bernde ba pare daal di julli tisbaar suñu ca jógee nag ànd ak Soda Marema suñu fa jógee tànn kàddu section yi nga xamante ne bii ñoo waju ñoo aju bi yëpp mbooleem section yi ñu maase ko jox ko kenn nit mu ta mu mu jottali ko suñu ca jógee yi tamit dinañu maase ci mbooleem koo xamante ne bii ma nga ca biir dëkk ba te nga xamante ne bii bokk nga ci biir liggéey bi te bokkoon ci sabab bi nga xamante ne bii moo jëm ca pàkk yi nga xam ne danañ ko fa délibéré Serigne Fallou Lo nga xamante ne bii moom la ñu nommé chef de quartier ca tund woowa mu joxe joxe carte euh, délibération yi nga xamante ne bi moo ci nekk ñu fas yéene jox kenn ku nekk sa këyitu kër nga yóbbaale ko ci liggéey boobu tamit dinañ ci woo mbooleem ñi nga xamante ne bi mooy suñu bokki bopp yi nga xam ne dañ koo war te war fa kenn ku ci nekk soo fa demee teg ci sa bët di nga xam la la fa war kenn sasul kenn dara kenn laajul kenn dara waaye kenn ku nekk boo demee da nga xam sababu ñu dej ñu dekkelaat dëkk ba defaraat fa la nga xamante ne bi ab dëkk noonu la war a mel ak la nga xam ne moo fa war a mën a nekk muy daara ja nga xamante ne bi mébét nañu ko fa ñëpp képp képp koo xam ne teg nga fa sab tànk boo demee ba gis ko la la ca war xam nga ko noo ca mënee nga defee ko ci kenn xeebul lenn kenn wootewu ci lenn kenn laaju ci lenn kenn lu ca waay def rek sa bopp nga ko ca defal lu waay def rek sa bopp bés boobu nag bés la boo xamante ne bi ci département Kébémer région de luga ci arrondissement Sagata di commune bu Colom Fall lay lay xewee bu fekkee ne da faa bëgg a ñëw te jóge Ndakaaru boo ñëwee ba Kébémer da ngay jël tëli bi nga xamante ne bi moo jëm Touba boo defee 29 kilomètres di nga gis bu ñuy wax ndaam foofa ngay jàdde bu fekkee ne da ngaa jógee ba romb Sagata Gate ñëw Njeng Jaw boo yéegee tuuti di nga gis benn tableau bu ñu bind Touba bu ñu bind Ndam ca tableau booba ngay jàddee soo fa jàddee rek euh, deux kilomètres la diggante ak euh, tëli bi foofa nag fa la ñuy defee mbir mi bis bi nag comme ni ko sëñ Abdourahmane waxee rek al àjjuma lay tàmbali ak samdi àjjuma ji ci lañuy ubbi jumaa ja délibéré ci li nga xamante ne bii mooy pàkk ye joxe ci caabi forage ba fas yéene nag jublu ci bisu samedi ba nga xamante ci lañ lañ ci war a def yëpp diggante ndaam yooyu nag bàyyiwuñu benn ndaam ndaam ku ci nekk kenn ku ci nekk noo ko déggee noo ko jàppee xamal ne yëgle bii mooy sab yëgle ñi ngi la cay woo bàyyiwuñu kenn ngi woo itam bàyyi gàdduloo ca nga xamante ne bii mooy ki nga xamante ne bii moo mag ci mbooleem euh, ñi nekk ci entité ndakaaru ak Serigne Morlo ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko séqal muy seen kilifa ñi ngi koy woo mu woowaale mbooleem section yi nga xamante ne bii dañoo aju ci biir fédération ndaam bàyyiwuñu benn fédération li ko tàmbulee ndakaaru luga Malam Odar Looyeen Saalum Kaolack ba Ndar ba Gànjool ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés boobu bésu maam Dame sa Ngar Xati la bàyyiwuñu kenn. ah man nag maa ngi waxee ci kàddu ñi féete ndaw mooy ñi nga xam ne nii ñooy sëti Dame Issa damay wax sax sëti Saman Ibnu Suufiyu kon ñoo ngi woote bi ñu ngi koy tàmbalee ci képp koo xam ne bi nii ndaw nga rek sëtoo ci Saman Ibnu Suufiyu ñu ngi lay woo ci euh, màggal gi ñuy def xaya mooy ñuy fàttaliku sunu maam ak sun maam yi nga xam ne bi nii euh, dañ fay nekkoon kon maa ngi woo képp koo xam ne bi nii ndaw nga ngir ñu jàpp ci liggéey bu baax baax comme niñ ko daan defee ren nag moom da dañoo bëgg ñu gën cee góorgóorlu ndax euh, ñun ñi féete ndaw ñoom ñun ñoo war a gën a mën a jàpp ci liggéey bi daal ka mag ñi kon ñu gën cee góorgóorlu képp koo xam ne bi nii ndaw nga rek maa ngi lay woo ci bis bi di la wax ne la buñ sañoon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo féete ndaw le 13 la ñu tàmbali liggéey bi Euh, jëmale la 14 parce que buñ bëggee bàyyi ba la suñu jékki-jékki rek ñëw ah mën naa euh, kii lu bari kon ñi nga ñi nga xam ne ñu ñoo féete ndaw nañ waajal le 13 buñ ñëwee euh, tàmbali liggéey bi comme que foofu la bis bi tàmbali ñaari fan la buñ demee bala la 14 nag ñu ànd ak mag ñi liggéey bi kon ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne bi nii sëtoo nga ci Saman Ibn Soufi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki Sénégal ak mbokk bitim réew yëpp rek képp koo xamante ni yaa ngi jàkkaarloo ñu dégg suñu kàddu muy jigéen rek ci Sénégal mbaa ma nga nekk ni réew ñu ngi leen di soññ ci bis bi nga xamante ni ñoo ko bokk mbooleem ko sutu ci maam daam Isa wala im maam daam isa ak saamaan sofiyu boolem jigéen yëpp rek ñoo ngi leen ciy woo bàyyi woon kenn kenn kenn kenn te xam ne jigéen moom lépp rek mën naa ne jigéen la ndax société bi jigéen a ko yor ñun jigéen yi ñoo ëpp jot kon nag képp koo xamante ni nag mën nga caa ñëw rek ngir yàlla ak jëmmi maam ya rek te xam ne lépp ak mbokk la. Ah, jërëjëf mbokk yi kon bis baa ngi noonu di bis bi nga xam ne waa fédération Ndaam Xaya ñoom ñoo koy amal. fële ca ndam noonu ñu ko déggee ci bokk yi wootee ko noonu nga xam ne woo nañ ci jullit yëpp woo ci bépp kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew bàyyiwun ci kenn di ñaan itam képp koo xam ne rek teew nga ci bis boobu sunu borom faj say ajo ci fàttali bis bi mi ngi war a doon la la treize la ñu koy door di ajuma ji comme ni ñu ko déggee rek ci la ñuy ubbi jumaa ji euh, euh, euh, maanaam joxe ci li nga xam ne moom mooy ay terrain yoo xam ne dana am ñenn ñu ngi ko fay jox ba ca dolliku itam ci la quatorze ji di dem ak samedi ci la ñuy amal bis bi ñu dajee fa nag waxtaane ci mbokk gi man fa ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo jiitu ji muy maam ya ak way juree yëpp di ñaan sunu borom bi fekkaloo ñu bis bi ak jàmm itam di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn baatub ñëpp nag bàyyiwul kenn baatu fépp itam bàyyiwul fenn kon ñoo ngi ñaan suñu borom bi defal ñu ci tawfeex ak taysiir ba ñu àgg ci ak jàmm te lépp luñ ciy séentu di ko ci sàkku suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu jortu ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu